salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fu waay mën a nekk waxtu wi di ñu seetaan mbégte la ñuy am ah, ni ñu leen koy defalee jeudi bu jot ñu jàkkaarloog yéen ci télévision Futur Média rawatina émission bi nga xam ne moom la doomu Sénégal yi nekk bitim réew ah, di xaar waxtu wu nekk ngir nag mu nekk loo xam ne ah, dinañ ci mën a gis seen bopp am nañu mbégte ni ñu koy defee fu mën a nekk nag ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci tànn ak ànd bi ngay ànd ak ñun li nga xam ne moom la ñuy dooree tey ji nag andil leen lu ama am solo wax naa leen ko weer wii weeru jigéen la weer la woo xamante ne ah ñun ah, jeex na waaye dañ koy continuer ndax nag gis ngeen ne mois de mars bi yëpp ay jigéen rek ah, la ñu ah, dalal ba tax na tey ji dañuy continuer ci lancé boobu ndax nag jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew ay jàmbaar lañu dinañ jànkoonteeg façon bu nekk waaye li leen yëkkati tax leen a dem mooy jom fulla fayda delluwuñu benn yoon ginnaaw ci li nga xam ne moom moo leen tax a jóg ñu xam ko sur le plan économique ak lépp ñu andi lu am solo ndax ci front yëpp lañuy ñuy taxaw looloo tax nag ñuy delloo njukkal képp koo xam ne jigéen nga te nekk bitim réew ci biir loolu nag tey jii ñu fas yéene leen dalal dalal ñoo xamante ne nii ku ne xam na ah, diggante Sénégal ak Maroc ay liens yu séculaire moom moo leen ah, lié ba tax na nag doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk Maroc macha allah rawatina jigéen ñi boo demee ci marché yi da nga leen fay fekk waaye boo demee ci centre d'appel yi da nga leen fay fekk waaye itam bu dee wàllum GP da leen fay fekk looloo tax nag tey jii ah, ñu fas yéene dalal doomu Sénégal boo xam ne dalaloon nañ ko fi mu andi nag lu rëy rëy mu jëm ci wàllu GP ak liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def risque bi ci nekk nekk waaye itam ah, li tax ñu andi ko dañuy xool booboog léegi taxaw seet lu andiwaat ko xool fan la toll ci wàllu liggéeyam ak képp koo xam ne yaa ngi def nga xam ne ah, moom moo di ah, liggéeyu GP ndax nag am na jafe yoo xam ne amoon na ko waaye am na koo xamante ne nii tam am na jafe-jafe dugg mu jëm ci wàllu Sinébar ñu génne ko muy Pape Touré ñuy fàttali ne génn na fi xam ne moom moo di ca kaso bañ ko dugaloon te la nga xam ne moom la yóbbu woon moom du woon coobareem loolu yëpp dinañ ci ñëw te ba pare itam dinañ ñëw en exclusivité Pape dinañ jokkook moom ngir mu wax ñu nan la dundee loolu ba tax rek ñu war a euh, def li nga xam ne moom moo di vigilance jàpp leen ne diaspora day tàmbali léegi ñu jëm ci invité bi jàkkaarloog Ndeye mari Sow nga xam ne moom moo fas yéene nekk invité tey euh, diaspora jóge ba Maroc euh, mbokk yeeg xarit yi ñu dem léegi léegi ci diaspora ak yeneeni sujet yu am solo yu leen soxal. diaspora la ñu wax euh, mbokk yeeg xarit yi gis ngeen ko ni ñu leen ko waxee euh, moom mooy rek euh, tey ji waxtaan wu am solo bi nga xam ne fas yéene nañ ko séq ñi nga xam ne ñoom ñoo di invité yi ay jigéenu jàmbaar yoo xamante ne nii tey ñoom la ñuy dalal la bokk na ci Ndeye Marie Sow ku ko xam-xam liggéey bi nga xam ne ci lay yëngu mu di wàllu GP yemul Maroc rek fu ne lay dem ci àdduna bi waaye mu nekk liggéey boo xam ne dafa ànd ak ay risques ñëwoon na fi fan yële ci ginnaaw bi mu amee jafe-jafe ci nga xamante ne mooy xale yi nga xam ne ñu ngi leen doon jàpp yu demee noonu Euh, te souvent dañ leen di piéger euh, ci mu nekk métier boo xamante ne métier bu ama am risque la te concerné li nga xam ne moom mooy sénégale yi nekk bitim réew Ndeye Marie nuyu naa la. Mhm. kontaan ma dalal allah kontaan naa ji sant waat ak yow nag dëgg la maa la gën a kontaan Pape génn na dëgg la génn na mhm. ça doit faire à peine euh, deux à trois semaines mhm. macha allah gisante naag moom keroog alhamdulilah sant yàlla rek. dëgg la Pape Touré nag si on se souvient très bien moom mooy doomu Sénégal bi nga xam ne euh, moom moo nekk euh, foofu foofule ci Maroc. Mhm. Euh, ñu piégé ko jox ko li nga xam ne moom moo di Sinébar ba tëj ko dinañ ci ñëw ci kanam. suñu paree nag dañuy jàll ci Niass Gouba Abdallah comme ni mu ko waxee. Maam jaara moom itam nekk Maroc depuis de nombreuses années di jigéenu jàmbaar moom it Maam Diarra ñu bàyyi la nga nuyoon teeg askan wi nuyoon teg waa Maroc ak waa àdduna bi nga xam ne ñu ngi seetaan diaspora waaw jërëjëf Kebs yow mi ñu jox opportunité vraiment ba ñu mën a toog fii. Mhm. mën a waxtaanee nag lu bari lu jëm ci dëkk bi nga xam ne dañ ko maîtriser. Mhm. dañ fa yàgg lool. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal ci opportunité bi. donc di nuyu ñi may seetaan ñëpp ku lim juum. di nag waa Maroc ñi nga xam ne moom sama xol laa leen def. dëgg la waa Maroc nga def sa xol loolu moo war ndax dëkk boo fa nekkee di fa liggéey ah, dafay am solo lool bu ko defee boo toogee fii nga delloo leen jukkal. Ah, li ñuy tàmbalee nag sujet yi dina bari lool ah, bokk bokk na ci li nga xam ne moom mooy métier bi ngay def euh, Ndeye Marie depuis de nombreuses années yaa ngi koy def macha allah euh, GP di dem ci dëkk yu bari di yóbbu mu nekk métier boo xam ne euh, dafay comporter souvent ay risques te yow na expérience boo xam ne dundoon nga ci. du ñu ci dellutiwaat parce que gis nañ vidéo yi mi ngi ci net bi et tout la fi invité mu intéressé woon ñu bari diggante boobu ak léegi nag dañuy def taxaw seetlu. Mm-hmm. Covid dugg na ah, ba pare économie yu bari am ay jafe-jafe. Mm-hmm. la boo xamante ne métier bu comporter ay risques la naka nga koy dundee. dundee actuellement euh, de bi ñu la fi invité ak léegi. ah avancement day am chaque fois si dara waaw uh-huh. maa ngi kontaan si question boobu nga ma posé. Mm-hmm. mais euh, li may wax à chaque fois te mm-hmm. waxoon la ko la mm-hmm. dernière fois mooy. vigilance rek la ñu soxla ci liggéey bi. képp ku lay jox bagage xamal noo koy jëlee. xamal loo siy def. ba mu yegg si ay loxo jàmbur. waaw metti na mettiwul. Euh, liggéey yëpp a metti pour man. amul benn boo xamante ne rek yomb na. Mhm. waaw moo tax nag euh, vigilance daal man lay wax à chaque fois. vigilance moom mooy euh, maître mot bi. Mhm. diggante boobu ak léegi expérience bi duñ ci ñëwaat. parce que mhm. jot nañ ko wax ba pare. am amoon nga jafe-jafe ci aéroport nga naroon a nekk koo xam ne yow tey ji dañ la naroon a tëdd kaso. ndax ci loo xam ne dañ la ko doon jox. waaye ki nga xam ne jàpp nañ ko mu di Pape Touré. est-ce que mën nga ñu ci ñëwaatal tuuti nga tënk ko rek expliquer pour ñi nga xam ne xamuñu nu mu demee. Euh, Pape Touré suñu benn góor la bu nekk foofu tamit. Mhm. daan dooleem. Mhm. comme ñëpp. Mhm. donc euh, comme li nga ko waxee woon rek. dafa doon voyage ñu jox ko benn euh, valise valise bi dafa amoon drogue. alors que ki ko joxoon après dafa daw. donc mu tëdd nag peine bu yàgg. c'était ñaata temps lañ ko tëj. un an. un an mine mhm. ba février ñëwaat. Mhm. si la génn. Mhm. léegi génn na mu ngi si jàmm moo ngi moo ngi reprendre ay activités ay business am vraiment moom bu dara yàggul parce que jóge naa fa semaine bi passé macha allah daal euh, te te moom ki ko ki ko ki euh, ko euh, defoon piège boobu. je pense Guinéen ba léegi kenn gisu ko. ba léegi kenn gisu ko. kenn xamul fan la nekk. mais ay mbokkam moom jàppale nañ ko ñu ko war a jàppale ñëpp jàppale nañ ko. ko. ba mu mhm. génn si jàmm ak salaam. Mhm. te loolu moo si gën a am solo moo ci gën a am solo. mais mu mel war a mën a parce que un tamit nga tëdd ko kaso ci ci loo xamante ne mhm. defuloo dara. wax dëgg yàlla metti na. waaw te mu doon nit boo moom tamit nit bu baax. nit bu dëggu nit bu xam li mu bëgg. nit boo xamante ne vraiment teg na lépp si loxo yàlla ne ndogal la woon bu man daloon. te maa ngi koy sant yàlla bu baax parce que am na ñu fa nekk ñoo xamante ne génn ñu ba léegi. ñoo xamante ne même chose moo leen dal mais taxaw rek moo am solo si doomu aadama te ay mhm. waa këram taxaw nañ ko vraiment bu mu mën génn xam naa ne du ñàkk mu dugg ci euh, émission bi mhm. loolu benn la ci expérience boo xam ne dundoon na ko parce que yow ak moom àndoon ngeen waaye xaw tuuti rek euh, loolu xam naa ne buñ ciy ñëwaat sax <laughs> euh, sa yaram dafay daw parce que tuuti rek nga nga nga daal di jàll def ñu def la ni ñu def Pape Touré loolu yëpp dafay àndi li nga xam ne moom moo di vigilance rek mhm. dañ ciy ñëwaat léegi Mame Diarra ñu gis ni tamit yàgg nga fi nga xam ne moom moo di Maroc Maroc est-ce que mun nga ñëw ak ñun ci sa métier bi nga xam ne moom nga fay exercer ak expérience bi nga xam ne moom nga fa am en tant que jigéen jigéen ak immigration mun nga ñu ci wax dara. voilà dafa nekk loo xam ne immigration dafa metti mhm. immigration surtout si jigéen boo amulee benn fit wala benn dëgëraay. Mhm. amaana ni du yegg. Mhm. donc ñun yàlla dogal na ni bi ñuy dem Maroc. Euh, c'était en 2008. donc yàgg na. bi ñu yeggee aussi ñu ngi woon ci centre d'appel yi comme tous les Sénégalais fa lañ nekkoon donc di ci liggéey. macha allah. waaye comme ñun moom sénégalais fu mu dem rek wane fa jàmbaaram. après nag ñu commencé di yëngu ci mbirum commerce mi. ñi dem ba ma am fa restaurant. ñi dem aussi ba ma am fa boutique gu cosmétique ba am fa boutique bu wat ak yeneen ak yeneen ak transfert yeeg lu leen di ci yëngu. loolu yëpp lu ko waral mooy sénégalais yi dañu am jom. Euh, dëgg la dëkk boo dem rek fekk fa ku baax fekk fa ku bon. waaye macha allah ñun dem Maroc. damay wax rek te yàlla tax ña fa nekk ñëpp am nañu fulla am nañu fayda te am nañu jom liggéey rek a leen tax a jóg Mhm. macha allah yombul nag waaye lépp. boo yombul moo tax euh, yombul yan jafe-jafe la ñuy euh, jànkoonteel ci wàllu liggéey bi. Mhm. parce que yow dégg naa la nga ne teg nga plusieurs business. effectivement mhm. euh, li may woowee yombul mooy dëkk jàmbur pour nga nekk fa à l'aise du yomb te ku ne xam na ni naari aussi tamit duñ ko yombalal. donc pour nga ñëw mën fa am benn assise boobu mën fa am yenn client te nga xam ne yow li ngay def say mbokku naar yi nekk ca dëkk ba ñu nga fa côté boobu laay waxee ni yombul. mais da ngay armé wu courage rek. xam li nga bàyyi ak li ngay wut si yàlla aussi dëgëral la parce que lépp ndimbal suñu boroom la mhm. ndax dara yombul dëgg la voilà loolu la dëgg la dara mhm. yombut comme ni nga xam ne moom nga ko waxee euh, mu nekk nag loo xamante ne ñun taxawaayu jigéen la ñuy xool parce que jigéen ak góor bu fekkente ne dañuy nekk jigéen day taxaw ci ñaari front mhm. ndax day liggéeyi góor ki di liggéeyi waaye daanaka dina am beneen rôle boo xam ne koy jouer war a nekk ci njaboot gi ak li nga xam ne moom la war a boole yëpp day nekk souvent luy poser problème te nekkul euh, yenn opportunité yi nga xam ne da koy am euh, mooy maanaam maanaam bu amee njaboot ñi nga xam ne dinañ la mën a wattu wala nga bàyyi sa doom ci kër gi wala nga def yooyu ah, dafay nekk souvent ay problème yoo xam ne daal jigéen foog naa ne bu ñuy jox ah, góor ñaari cër ci immigration war nañ koo jox lu mat fukk. ah loolu moom dëgg la moom. <laughs> daa yow. parce que des fois keps nga gis euh, jigéen ñun jigéen ñi nekk foofu. Mhm. ñuy bay suñu waar ci benn aram boo xam ni métit boo xam ni. Mhm. danga naan est-ce que lii boo ko tegoon tey place góor dina ko def. Mhm. góor ñi jàmbaar lañu. mais man immigration jigéen ña ma fay dajanteel ak la ñuy daj ak nañuy amee jom ak fulla ak fayda xam li leen tax a jóg man des fois dama naan jigéen ñi sax est-ce que waruñu leen woowee góor ndax jàmbaaru góor dëgg la ñuy ànd dëgg la waaw mu nekk lu am solo bu ñuy wax jigéenu jàmbaar itam ne dañ leen di jox fukk duñu bàyyi benn yoon góor ñi nga xam ne ñoom itam euh, dañuy taxaw ci ñaar wala fukki front mhm. ndax fa ñu nekk dañu yore ñaari njaboot dañu yore njaboot gu nekk foofu yore njaboot gu nekk fii yore famille nekk ay jàmbaar yoo xamante ne tam lu ñu mënti jànkoonteel duñu fàtte ne Sénégal moo leen tax a jóg ah, te ah, taxawaay bu am solo bu mat sëkk la ñu am ba tax Sénégal li nga xam ne moom la fi immigré yi di dugal amul lenn lu ko fi dugal ah, boo jëlee aide publique boole kook mille lu ëpp mille milliards ku koy dugal cim réew war ngaa nekk koo xamante ne yaakaar naa ne dañ lay valoriser te sénégalais mooy koo xam ne bu demee bitim réew itam du tax mu fàtte benn yoon dëkkam ñoom ñooy def lu ñu liggéey yónnee dépense te ñu sax lekk kon am leen di wool boo leen woowee lenn lu dul soxla leen kese te buñ la yónnee boo egsee boo jotee ci yónnee bi sax merci duñ ko dégg kon ñooñu yaakaar naa ne war nañ leen delloo njukkal la nday mari <laughs> reetaan nga <laughs> parce que li nga wax dëgg la man Sénégal rek laa gis euh, nit daf lay woone la may ma ma yàq mm-hmm. may ma ma yàq mooy ma ma dem xew xew wala may ma ma dem te loo leen si may mm-hmm. après ñoom dañuy dañuy dañ koy gisee neneen mm-hmm. parfois ñun def ñu xeeb ko comme ni nga waxee boo boo ko buñ la boo ko boo leen ko envoyé mm-hmm. merci bi sax duñu la ko envoyé mm-hmm. yow yaay nekkaat si derrière di xool ndax jot nañ ko wala jotuñu ko mm-hmm. yaakaar naa ne boobu fànn tamit war na ñun jigéen sénégalaises yi nekk fii nii. war nañ war nañ bàyyi loolu. yàq bi daal war nañ ko wàññi. <laughs> dëgg la yàq jëmalewul am réew kanam te foog naa ne euh, jigéen ñu bees ñi am na euh, beneen taxawaay boo xam ne ñi ngi ko ci am. bien que mi ngi am sax mais léegi jigéen ñi ñu gis xeetu jigéen ñi ñu gis sa genre bi. ak dynamisme bi ñu gis ci ñoom ak lépp loo xamante ne rek euh, taxawaay la. Mhm. beneen air bu bees moo am ci jigéen yi rawatina ñu nekk ci diaspora bi ma bàyyi la nga sànni ci kàddu rek ci loolu wala yow bu ko yónnee dina ne la merci. ah merci doo ko dégg moom <laughs> loolu la war nañ cee wax. li li gën a metti sax mooy. Mm-hmm. da ngay yónnee. yow boo déggul merci sax xanaa nga dégg ni jot naa gis nga mm-hmm. sénégalais yi nekk bitim réew yëpp loolu la ñuy kaas mm-hmm. bu ñu leen waree yónnee moom dinañ woote mm-hmm. dinañ la sonal la sonal la sonal la sonal ba nga yónnee mais boo fexee ba yónnee allo jot naa ci sax doo ko dégg allo jot naa ci yow yaay woote na ko est-ce que jot nga ci wala est-ce que maanaam yegsi na wala lu ni mel dëgg la nekk loo xam ne nag des fois day day choqué la personne mu nekk sa kilifa wala mu nekk sa xarit wala sa am di jàmm da lay metti mais doo ko bëgg a manifester dëgg la jikko jooju moom sénégalais moom nañ ko bàyyi <laughs> sur le plan social la bu ñuy wax euh, euh, immigration parce que tamit day nekk rek euh, symbole de réussite boo ne diw dem na rek dañ naan symbole de réussite la. Mhm. ci wàllu liggéey bi nga xam ne yow yaa ngi koy def Ndeye mari mhm. est-ce que mun nga ñu expliquer lan moo tax nga choisir ko ak fi mu nekk ni naka ngay organiser woo ba yemuloo Maroc rek yaa ngi dem dëkk bu nekk malgré risque bi ñu ciy wax tam am na ay peut-être avantage mais tam nekkul lu yomb parce que mhm. tout le temps ci jaww ji. CP bi. dama doon voyager j'adore voyage parce que sama papa la. Ah, waaw donc euh, mhm. j'adore voyage ba nga xamante ne. Mhm. Euh, bi ma nekkee Maroc dama mhm. daan def chaque vacances damay damay damay dem France wala wala fenn. heure bu ma ko mënee rek dama koy def. léegi bu ma ko commencé di def au début su ma demande damay wax sama collègue yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du du Maroc. ma bokk ak ñoom centre d'appel bu ma doon liggéeyee. au passage maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. Euh, su ma demee dañ naan man dugal euh, si si si boutique yi comme ay Zara affaire mhm. yooyu mhm. bu ko defee ma dugg su ma duggee jënd su ma ñëwee ne leen lii laa ko jëndee teg si dara mhm. à un mu dem ba affaire bi nag dox dox bu baax ma ne mais pourquoi pas man may dem su ma demee ñoom ma jëndal leen au kilo ñu participer ci billet bi ma ñëw. c'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit. léegi bi ma ko commencé foofu. après ma commencé di dem Maroc. di mhm. commencé di jóge Sénégal di dem euh, Dakar mhm. di jóge Maroc di dem Dakar. Mhm. parce que tamit daf lay permettre. à chaque fois ngay gis say parents. loolu moom si gënoon neex. chaque fois yaa ngi am ay nouvelles say parents certes boo toogee Sénégal mais fii di nga ñëw def sa benn deux jours trois jours gis leen. delluwaat. début bi nag mu doonoon loo xamante ne. Mhm. presque man rek maa ko fa doon def à part yeneen 2GP. Mhm. mu mu doon dox nag vraiment bu baax a baax a baax ba ma initier ci sama frère boobu. Mhm. te émission ba le passé. Euh, Jamil te mu. intervenir Jamil voilà. Uh-huh. <laughs> léegi après nag léegi gis nga nag euh, affaire bi dem nag ba law. léegi foo tourné nit ñaa ngi def GP. te comme li may wax chaque jour ñëpp si xaj. ñëpp si ñëpp si xaj na rafet rek nañ ko def dans les règles de l'art. am na concurrence quoi am na concurrence mais ñëpp sa xaj. concurrence bu seen wala bu mal seen. ah <laughs> am na bu seen am na bu mal seen. comment naka la ñuy concurrencer. ah parce que parfois client day ñëw ne la ah man kat dem naa si benn GP dem naa si Mame Diarra. waaye moom nee na mas. 3000 euh, la may defal kilo bi. Mhm. yow yaa ngi def sa kilo 5000. Mhm. waaye ñun bu ñu nooyee bopp tuuti rek. dañ mhm. naan ah maam jaara de moo am nu mu mel alors que clients yi ñooy teg stratégie boobu. bu fekkoon ne maam jaara mi 3000 la ko wax. du ñëw si man pour 5000 francs nañu waxante dëgg la mais <laughs> liggéey boo gis dafa am euh, nu ñuy structuré. ba booloo est-ce que yéen organisé wu ngeen am ngeen ay euh, à part groupe WhatsApp yi am na ay structure lu ngeen teg nga xam ne dajaloo ngeen. pour ñu gën leen mën a dégg. voilà ah, am na ay groupe am na ay groupe yoo xamante ni ñoo ngi dox si loolu vraiment mm-hmm. man nag euh, adhéré wu ma si groupe boobu mais euh, dégg naa ko ñu koy wax te ñoo ngi doon def le tout sax pour am papier mm-hmm. vraiment mais association bu mag a mag bi nga xamante ne nag mooy euh, GP Sénégal. waaw bu moom mooy bu mag a mag. mooy bu mag bi te bokkoo foofu. bokk naa foofu vraiment. Mhm. di nuyuwaale ñoom tata Abi. dëgg la euh, ñoom tata Marie Christine maa ngi koy ah, nuyu Marie Christine Marie Christine TFM la nekkoon. Ah, moom euh, présentatrice la woon mais mhm. dafa dafa dem changé kii nu mu di changé nekk GP bu mag nee na mooy Marie Yombale Marie ñu ngi lay nuyu. GP 2.0 waaw <laughs> fii la nekkoon di liggéey de di présenté. macha allah ak ñoom tata Bella di nuyu ñëpp daal. na looloo ëpp xaalis GPA dañu am xaalis yàlla bu baax. tamit maa ngi lay nuyu Ndeye Mbaye Diagne GP bu mag bi nekk fi nga xam ne moom moo di euh, Italie mm-hmm. euh, mu nekk loo xamante ne. Euh, déjà organisation ak structuration moom mooy tax nit yi gën leen a jox gëdd bi nga xam ne moom ngeen war a am parce que nag même mm-hmm. domaine la dama wax ni sénégalais mm-hmm. dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo ingénieur da ngay xool cak-cak rek ni mu doxee ci réew mi te sénégalais bu nekk bitim réew moom moo ko andi initié ko ba ñu naan cak-cak léegi xale yépp ñu ngi ciy suturlu ah, te fii réew mi toll noonu la ñu war a def xool ban naka la ñuy def te yaakaar naa ne GP tam ñu ngi ciy suturlu macha allah Ndeye Marie bu baax sax ñoo ngi ciy suturlu parce que bu fekkoon ne amul woon dara ñun duñ mhm. si continuer mhm. vraiment mhm. c'est juste que li may wax rek euh, nañ ko def rek si ni mu rafetee te amul critère ku nekk mën nga ko def ku nekk mën yow képp soo bëggoon tey tey tey nga doon gépp parce que amul dara luñ lay laaj loo xamante ne jëndal sa billet aller retour def euh, liñ la wax rek am sa clientèle dem si dëgg la waaw mais. Euh, Sénégal ni ñu ci avancé yaakaar na amul benn dëkk boo xamante ne yaa ngi defee. noonu GP amul je ne pense pas que. Mm-hmm. te ñoo ko njëkkee nag léegi sénégalais yi. waaw pratiquement waaw ñëpp ah. ñëpp a ngi si GP bi daal dëgg la dëgg la. <laughs> ñëpp a ngi si GP bi macha allah. dëgg la ah, dëgg la ah, ñu ñëw nag ci moom mi ngi wax concurrence boo xam ne dafa mal seen concurrence day am ci lépp. Mm-hmm. Ah, waaye bëggul xóotal. Mm-hmm. mais concurrence boo koy wax peut-être nee nga client yi ñooy def noonu di leen ruube. Mm-hmm. pour mën a am lu gën a yomb. donc mais du entre li nga xam ne moom moo di GP yi. liggéey bi foofu nga nekk sénégalaise d'habitude boo demee ci dëkk pour nga samp entreprise nekkul lu yomb. parce que ñu bari dañuy dem foofu di liggéeyal ay nit boo ay ni que peut-être papier yi laaj pour nga am ant yenn teg yi mhm. euh, souvent du du commode mais yow réussir nga ba ba def mhm. euh, naka la demee ak yenn nga ci jànkonteel d'accord li ñu ci gën a yombalal mooy que ni dañoo amoon kayitu dëkk bi mhm. ndax effectivement pour nga louer déjà boutique wala nga louer magasin rek déjà ay kayit lay laaj donc bu dee amoo ay kayit yu la ko yombalal doo ko mën mais li gënoon dolli suñu sutura li gënoon tax yëfi yomb mooy que ni ñun facilement dañoo amoon déjà ay kayit en tant que employé ci société yi donc boo nekkee ci société yi di liggéey dangay nekk en règle mhm. donc boo nekkee en règle nag facilement ak sa carte séjour ak sa yooyu mën nga mën a ubbi mais yombul yombul yombul parce que di nga ubbi mais naar dafa dafa xaw a am tuuti ji jikkoy caay-caay keps mhm. kii xam na li may ah, wax wax wax ji de bàyyi toog fi di kii daal xam na li may wax parce que des fois nga ubbi ñi gis ni yow sénégalais nga. Uh-huh. bàyyi nga sa dëkk yaa ngi seen dëkk te yaa ngi te sénégalais nag dafa mën a sott. Mm-hmm. gis nga boo fexee ba ubbi di seen mbokk lekku naare ba nañ ko fa. léegi nag bu ñu la gisee yow nga nekk ci biir marché bi exemple ku ñëw rek ñëw sa place dañuy commencé ñoom tamit yor seen jikkoy caay-caay dëgg la waaw soit ñi ñëw di yónni ay booy foofu ñu lay sànni xeer wala di ah. waaw di la indil ay xeer menn mi di la indil ay jikkoy caay-caay yoo xam ne doo xam noo koy expliquer mhm. mais boo xamee li la tax a jukk nga gestu sa ginnaaw gis say mbokk yu fa nekk di la dooleel di la jàppale mhm. da lay yokk fit da nga naan te sénégalais nag dafa dafa dafa mën a sabu. ak ñu bëgg lu baax. parce bu ñu xamee li Maroc sénégalais yi di dal daj biir Maroc. ni ñu ko rafetalee rek mooy wax dañ koy rafetal. dëgg la du ñu du bëgg a wax au fond mais man mi nga xamante ne. dama neutre taxawee côté bële. Euh, damay jot souvent ay plainte ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi leen koy teg. waaye du tere ñu toog rek ànd ak seen ngor mais sénégalais yi sonn nañu Maroc torop même ci renouvellement li nga xam ne moom moo di wàllu këyiti sax. torop defe naa dañ ci indiwaat yeneen jafe-jafe. Mhm. Mhm. d'accord pour nga am këyit Maroc. li la ko mën a may mooy nga liggéey mhm. wala ngay jàng mhm. waa KEPS yow léegi boo immigré ñëw ci dëkk jàmbur mhm. yow amagoo liggéey njàng taxulaa jug daan doole mais kooku léegi nu muy amee kayit moo ma jaata nga am kayitu dëkk bi mais foog nga ñëw tant que étudiant wala nga ñëw en tant koo xam ne day liggéey te boo demee ca société ba pour ñu la société bi li mu lay njëkk laaj mooy ànd sa kayit kon lu fa ñi nga xam ne jànguñu ñi mënuñoo dugg ci yenn société yi mooy mindaan yi ngay gis maa ngi ci tur bi mooy mm-hmm. ñi ne ci kër yi di daan seen doole mm-hmm. Mm-hmm. ñi ne ci marché yi di yenu wala yeneen ak yeneen mu metti lool nag ak xadi rasta ak aji rasta ba mu nekk ay jigéen ba naw lool nag ñooñu moom samay xam nga xam naa leen dañ may woo toujours ñooñu samay nit la ñu keps ay jàmbaar lañu jàmbaare balaa sa yaram di daw rek keps nga romb fekk muy taw wallaay ñu yor bâche bi ndox mi di sotteeku ci seen kaw ñu dékku ko rek nekk ci marché bi di daal bëgg a faj rek ak am jom wallaay la si maa ngi leen di kuku ñoom ñëpp samay xarit lañu waa aji rasta bi <laughs> dëgg la waa aji rasta day bari waaw euh, comme li jaar a wax rek mhm. gis nga foofu pour nga am fa kayit c'est c'est très difficile mhm. comme foog nga ñëw liggéey fa pour mën a ah. am kayit mais léegi euh, même ñi nga xam ne dañuy liggéey comme jànq si biir kër yi normalement bu ñu toppee vraiment li li li li loi bi wax. seen kii yi patron yi dañ leen di defal ay papier parce que xam naa ci pas mal de clients yoo xamante ne man maa leen di indil seeni bagages. sànq wax nga aussi que dañu changer nit ñi euh, pour papier yi affaire yooyu. Ah. mais il faut que ñun tamit ñu xam ne. Mhm. c'est pas pour sénégalais yi rek lañ ko changer c'est pour tout le monde. tout le man loolu lay bëgg à chaque fois ñun sénégalais dañoo am tendance wax. ñun waaw defal nañ ñu lii defal nañ ñu li changement bi c'est pour tous les euh, étrangers étrangers waaw les ressortissants yu fa nekk mhm. donc il faut que ñoom tamit ñu bàyyi xel si loolu mhm. te comme ñoom seen dëkk la nee nañ euh, pour nga am kayitu dëkk bi nii nga war a def man ah, conformé wul ci loi man tàppet la parce mhm. que comme li ñuy wax chaque jour tàppet sax j'en profite pour euh, pour def un coucou à madame Mena sama seex sama xarit sama lakkal daal <laughs> li may wax chaque jour non tàppet sax ana sa fit ñu tëral seen loi parce que noonu laay def état yi dañoo souverain waaw nit du moom dëkkam tëral ay mhm. loi am nga ne yow doo ci tënku nga ñëw nga ne doo fa doo fa tënku man mën loolu mënuma ko concevoir dañ naan Ndeye Marie da nga compliqué ma ne leen déedéet ñoom ñoo moom seen dëkk ñoom ñoo wax lii lañ bëgg mhm. donc yow aligné wu dëkk da ngay aligné parce que ñoom ña fa dëkk li liñ wax loolu la ñuy def ñun ñi nga xam ko def c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué euh, euh, daan wax rek mhm. boo ñëwee ci dëkk itam Euh, yal na yàlla yokk leera boo ñëwee ci dëkk da ngay tënku borom tukki mi ah mm-hmm. bàyyi soxna Astou Mbacké mm-hmm. ah, moo ko daan wax ne da ngay topp la nga xam ne moom la dëkk ba digle ndax du ñu tëral ay loi moom seen réew yow nga ne doo tënku ci dëkk yooyu kon sa nekkin day xaw a am jafe-jafe souvent tam nañuy bàyyi xel yooyu bu a mm-hmm. baax Baara Ndiaye mu ngi ñuy seetaan moom itam euh, euh, Maroc la nekk waaye mi ngi actuellement au Sénégal nee na lay nuyu bu baax <laughs> ak nekk ci dëkk yooyu nga xamante ne moom mooy pays euh, yi ay Maroc ak yu demee noonu bokk na ci ak ki nga xam ne rek moom moo di euh, euh, may sa Gueye nga xam ne moom mooy président association des migrants sénégalais de Zarzis Zarzis c'est en Tunisie donc moom dinañu ko dalal bee passé dañ ko waroon a dugal parce que association bu am solo la fa yore ñu def liggéey di taxaw nit ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar ñu leen di jàppale mhm. euh, bu baax a baax ci euh, jafe-jafe yooyu kon ñu ngi koy encouragé bu baax donc euh, Penda aussi ñu ngi koy nuyu depuis la France ak képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan actuellement émission bi ñu ngi dëgmal nag jëm ci weeru koor weeru koor Euh, doomu Sénégal yi nekk bitim réew incha allah nañ ko fekkete tal ko euh, di dundee euh, jëm ci wàllu horaire yi heure xëdd yeeg yi nga xam ne moom moo di lan lañ ci wax yan charte parce que souvent boo tukkee xëy na. Euh, liggéey bi dina la tënk bien que ñoom ñi fa nekk yëpp sax euh, seen diine dañ koy respecté ndax nag am nañu référence ci li xam ne moom moo di daayira yi fa nekk yooyu euh, kon nag tukki taxu la bàyyi li nga xam ne moom mooy diine te diine daf ci am pàcc bu am solo ndax am na point yu bëri yoo xamante ne ci diaspora bi dañuy posé wu la question de savoir naka la ñu koy defee booy jënd kër nan nga war a def parce que am na loo xam ne da nga ko war a génne intérêt yam déet loolu yëpp nag dañu ciy fas yéene désormais di ànd ak ki nga xam ne moom moo di imam Euh, Sakho bi nekk fi nga xam ne moom moo di New York di nit ku ñu respecté fi nga xam ne fa la nekk yore fa euh, euh, jumaa joo xamante ne ni bu koor gi jógee jotee dafay def lu am solo ba pare nag day jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk donc ñu dem xooli lan la wax ci ponk koor nekk fi nga xam ne moom moo di bitim réew naka lay demee après ñu dellu siwaat ci ñaari invité yi muy Ndeye Marie ak Mame Diarra ku nekk ci ñun mbokk yi foo mënta nekk ambassadeur nga de l'islam pour les musulmans sa jëf ak sa wax ak sa jëfandiku ci la ñuy juger jullit yépp Jean de La Fontaine daf daan wax ne bu leen juger un livre par sa couverture waaye réalité mooy loolu rekk lañuy gis te suñu maami l'islam yu baax yi ñu jiitu Europe jiituñu Amérique ñoo tax tey l'islam mel fi nim fi mel kon ñun buñ fi ñëwee dañoo war a yokk loolee waaye waruñ ko wàññi ma jox leen exemple ci Cheikhu Ibrahim benn turc la bu yore woon boutique France am benn xaleel bu tudd Jihad doom doomi ay yahut la mu daa ñëw foofu nag di jënd ci moom bés bu ne waaye yu ñëwee dana sàcc benn chocolat foog ne sëriñ bi gisu ko foog ne Cheikh Ibrahim gisu ko Cheikhu Ibrahima mu ngi koy gis waaye du ko wax dara benn bés xale bi ñëw xam naa dafa yàkkamti wala mu fàtte ba jëlul chocolat bi góor gi dab ko woo ko mu ñëw mu ne ko am nga loo fàtte mu ne ko lu ma fàtte mu ne ko sa chocolat bi nga daal jël bés bu ne mu ti ne kon yaa ngi ma doon gis commencé jooy loo may def danga may wol police danga koy wax samay wayjur mu ne ko déedéet waaye ci condition mooy li ko dalee tey dootoo sàcciti soo ma garantiiree loolu duma la booleeg sa papa ak sa yaay duma la booleeg police waaye dinaa la jox chocolat bu set dootoo ko sàcciti maa la koy may Cheikhu Ibrahim ba ni jaar di màggee saa yu jaaxle ñëw seet si ko nekk na xale lu góor nekk adolescent ba mat mu kallaf fu mu jaaxlee rek ñëw seeti Cheikh Ibrahim ne ko sama problème tel à tel bu jëndee benn livre jox ko ne ko ubbil page bu la neex page bu mu ubbi rek Cheikh Ibrahim jàng benn xat ñaari xat mu mel ni solution ba mu doon wut am na ko ne mu toog jamono am problème ñëw ndekete Cheikh Ibrahim feebar na mu dem di ko seeti hôpital ay fan ñu ne ko Cheikh Ibrahim faatu na mu ñëw ci famille am di leen jaale bi mu jaalee ba pare ñu ne ko ah am nga fi ndénkaane Cheikh Ibrahim am na benn kees gu mu tëj ne famille am bu ko kenn ubbi xale boobu daan ma seet si bu ñëwee ngeen joxal ma ko mi ngi noonu euh, borom euh, xam-xam la di taxawal euh, diine l'islam foofu mu nekk ca New York ñu respecté ko fu bu baax ñu faral di ñëw ak moom ci ay waxtaan yoo xamante ne da koy andi ci wàllu diine wax naa leen ko sànq booy jënd kër ni ngay def ak yeneen entre autres sujets yoo xamante ne am na solo lii nag ñi ngi def deuxième partie bi la dugal à la place de la première partie xam naa ne vieux dina ci ñëwaat mu nekkoon loo xamante ne ni da koy waxtaanee mu di Ramadan dans la diaspora avec imaam imam Mouhamed Sakho mm. nekk koo xamante ne ku ñu respecté la foofu ca New York di euh, jëmmal diine ji désormais day ñëw ak ñun euh, ci euh, jàngat yooyu le boroom xam-xam la bu ama am solo te ku ko déglu rek di nga mën a xam nooy taxawee ci sa wàllu diine bien que ak foo mën a nekk ci àdduna bi ndax dafa am solo te ñu ngi dëgmal jëm ci li nga xam ne moom moo di weeru koor ak mboolem koo xam ne yaa ngi seetaan waxtu wi lii di émission bi rek mbégte la ñuy am saa bu nekk wax naa leen ko Ndeye moo nekk nii bari euh, ku ne xam na ne euh, moom euh, GP lay def waaye nag mu am ci jom lool am ci fulla Ah, di ci daan dooleem di xale waaye nag eh, eh, ñeewul benn eh, moroomam ci liggéey bi nga xam ne ah, taamu na ko di ko def teg ko ci li nga xam ne moom moo di yoon ah, tey ji Ndeye Marie est-ce que mun nga ñu wax à part bi nga xam ne amoon nga ko léeg-léeg nga def ay kilomètres wala nga nekk ci jaww ji xeetu <laughs> kérosène sonal la ay pendant parce que tam GP c'est pas parce que nekk ci jaww ji ba pare bëgg boole bagage yi ku ci nekk fa mu war a jëm li mu laaj est-ce nga ñu ci ñëwal xool sa métier boobu le ah loolu métti na. ki ko ki koy ki koy def rek <laughs> moo la ko mën a wax waaye metti na torop parce que par parfois nga ñëw jaxase koli jàmbur. Mhm. yóbbu ko beneen dëkk. war ko mhm. delloo si waat indi ko mais mhm. pas à chaque fois nag clients yi ñoom ñoo lay euh, ñoo ñooy dawal compréhension rek. parce que di si gis aussi ñoo xamante ne. da ngay juum si seen colis du juum sax parce que am naa si benn mésaventure boo xamante ne weer bii dii rek la. Mhm. yóbbu colis ba France. Mhm. ñu yóbbu colis bi jox ko borom. posté ko jox ko borom jorom jël si euh, euh, borom euh, kii ko. Mhm. numéro téléphone bi baaxul ñu delloo si waat colis bi. ma wax ko delloowaat bi ma demee post rejeté ko mais xale bu jigéen bi lu ma waxul da koo fàtte. déedéet. <laughs> saaga na ma xas na ma wax na ma lu ko neex waaye nag man maa jël ay bagages mhm. donc lépp rek euh, dama koy teg si yoon rek. day am ay mésaventures fay am ay mésaventures mais nag loo xamante ne la ñun ñoo ko ñoo engagé wu man à chaque fois. je suis de ce que mhm. dama bëgg GP bu may def. ba nga xamante ne parfois dañ na ma yow da ñàkk fay de client yi lii wala laa ma ni ah amul problème client parfois dafay wax ak man sax ma jooy. Mhm. après fomp samay rongeñ continuer sama rakk yi man bàyyi ma ma wax bàyyi ma ma def nii mais bon. amul mhm. àdduna amul solo mhm. euh, quoi qu'on puisse ñoom ñoo ñu fi teg ñoom ñooy clients yi mhm. donc te ñun ñoom ñoo tax ñuy liggéey donc war na mën a rafet bu dara ñaaw dëgg la waaw bu dara mais yéen a ngi ciy gis seen bopp aussi bu baax bu baax vraiment ñoo ngi siy gis suñu bopp parce que lu ñu bëgg ñoo ko ciy faj kuñ si mën a jàppale ñu jàppale la si kuñ si mën a ñoo ñoo ñoo ngi siy gis suñu bopp parce que boo bàyyee liggéey pour dem ci beneen liggéey mhm. c'est parce que yaa ngi siy gis sa bopp su ma ko gisul woon damay retourner si centre d'appel bu ma nekkoon dëgg la dëgg la àdduna sax benn métier yombul mhm. te euh, li bëgg rek mooy noppalu te noppalu moom yàlla na mujj bu ñu fi bàyyeekoo lay doon te yàlla na yéex mhm. kon ku nekk ci àdduna foog nga ñam ci yi fi ne waaye mu ñaale ko rek loolu la doomu aadama euh, sàllool euh, maam jaara n'est-ce pas dëggantaan loolu uh-huh. yoon Kebs uh-huh. voilà man nag Kebs damay lancer aussi benn cri de cœur uh-huh. parce que ñun ñi nga xam ne exemple dañu nekkoon bitim réew. Mhm. jékki-jékki décidé ne lu nit am lu nekk muy sunu expérience sunu xam-xam mhm. sunu njàng nañ ko indi ci sunu réew. mais da ngay ñëw keps pour nga am problème mu insertion bi dañ cee war a wax. Mhm. ndax li opportunité la ndax daf ma dal dal ñeneen ak ñeneen te amuñu occasion wu ñëw wax ko ci kanamu tele bi. donc ñuy ñaan autorité yi nañ ñuy bàyyi xel. ndax tukki neex na lool waaye nag loo mën a am rek sa dëkk moo la ko gënal. Mhm. kon bu ñu bàyyee lépp lépp ñëw suñu dëkk installé wu fi toog war na ñoo mën a am cellule boo xam ni moo ñuy gàttandu ñun ñi nga xam ne macha allah dañu am expérience liggéey am niveau am loolu yëpp mais da ngay ñëw pour nga am liggéey sax problème la des fois tu te dis dans nii mais pourquoi je suis revenu Mhm. da nga koy regretter. Mhm. dangay ngay préférer jël sa expérience jël sa doole jël sa lépp jox ko beneen dëkk. Mhm. que sa dëkk parce que da ngay ñëw pour ñu dugal la benn place sax problème la. donc loolu vraiment cri de cœur la comme mhm. émission bi macha allah ñëpp a koy suivre mhm. ma ne woon bu ma yegsee foog ma lancé ko ñu bàyyi xel ñi demoon te dellu si ñëw pour seen dëkk ñu gàttanu leen ah, def la choix wu dellu si waat sa réew dafa nekk loo xamante ne nii boo ñëwee da ngaa war a gis loo xam ne moom moo gën am na nag yu ñuy euh, def di ko installé xam naa ne bu paree xëy na di ngeen ci gis seen bopp mu di BAOS muy bureau d'orientation et de suivi ñi nga xam ne ñi ngi koy def ci région yëpp nit ñi mën cee mën a jot euh, sulaa la houlette de nga xam ne moom moo di madame Mbow moom moo ko jiite dañuy installé nag te pareeguñu waaye xam naa ne bu paree moom war nañ leen a taxawu ndax ki nit ki nga xam ne des fois da ngay gis nit sax ku bàyyi salaire bàyyi lu ëpp la ko ñor moom mooy dellu siwaat ci dëkkam mhm. li mu bëgg mooy toog ci dëkkam moo ko ñor kon bu ñëwee yaakaar naa ne dañu ko war a orienté mu am suivi ak accompagnement ba mu gën a mën a réinsérer wu mhm. ci société bi loolu day jëmmal day tax ñeneen ñi nga xamante ne Euh, ñoom ñoo fa nekk bëgg a ñëw dañuy sawar pour dellu si nañu bàyyi bunt yu ñuy tëj tijjil ñëpp ah képp koo xam ne ñëw nga rek bu ko defee nga war a mën a gis sa bopp ndax nag euh, loolu day am sax ba ci sport bi am na benn joueur boo xamante ne li tax Sénégal ñëpp bëgg ko muy Abou Diallo je crois mhm. dafa choisir ñëw fi nga xam ne moom moo di Sénégal euh, loolu patriotisme dafa am solo kon bu nit ki mhm. ñëwee ba egsi fii dafa war a gis la mu gisoon foofu yaakaar naa ne moom mooy nekk loo xam ne dina encourager ñeneen ñi pour ñu ñëw mhm. ndax Sénégal dëkk la boo xam ne bu ñu ko defarul amuñu keneen ku ñu koy defaral am nañu lépp pour dem ci kanam mm-hmm. ressources naturelles ressources humaines lépp loo xam ne war na rek am na li ci des rek moom mooy ah, ñu gën a dëggal suñu bopp rek rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di ah, immigré yi mm-hmm. ah, fan yi ñu nekk nag gis nañ ni actualité bi au Sénégal eh, également déggal en France moom moo di koo xam ne peut-être duñ ko may sax lii di Éric Zemmour wax wax ju tegginewul teg ko ci li nga xam ne moom moo di deru sénégalais yi et c'est fois mu koy def ne jaaykatu ciné bari yeeg lu bon yooyu yëpp euh, sénégalais yi ñoo koy def muy stigmatisation boo xamante ne euh, naqari na képp kuy euh, doomu Sénégal ak doomu Afrique ba tax na nag ambassadeur bi nga xam ne moom moo di Maguette Seye génn na ba daal di koy tontu ñaawlu loolu dénoncé ko avec li nga xam ne moom moo di arñi bu ama am solo ndax loolu mooy tontu bi mm. ndax nag stigmatisation baaxul te sénégalais yi ay jàmbaar lañu jaay lu bon wala def lu bon ajowul nationalité fépp la am donc nag dire que sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, Paris dañuy euh, ñoom ñooy ñiy jaay stigmatisé la te loolu ñaaw na euh, ambassadeur bi nag génn na daal di ci wax wax ci waaye nag dañoo bëgg mu gën a kawe mm-hmm. autorités yi gën cee taxaw wax ci ndax France fii ñu toll nii daakaar naa ne ñoom ñoo ñu gën a soxla ko ñoom te dafay am fooy tollu nag da ngay gëm sa bopp te doo nangu yenn yi waaw stigmatisation bi ma bàyyi la Ndeye Marie ngeen sànni ci kàddu mm-hmm. actualité la duñ ci taxaw di ko defal li nga xam ne moom moo di promotion di ko ñaawlu rek mm-hmm. keps di ko ñaawlu ndax man damay wax toujours rek ma a gis nga nit bu bàyyee dëkkam. ñëw bëgg a doon président rek ci. waaw teg ci mm-hmm. yow nga jige nit bàyyi dëkkam ñëw ci sa dëkk. Mm-hmm. ma dama naan toujours rek kooku nga war a gën a yaatal. kooku nga war a gën a mettre à l'aise que ki nga xam ne ci dëkkam la nekk. Mm-hmm. ndax ki bàyyi lépp ñëw kooku mooy sa gan. kooku nga a teral kooku nga war a yaatal kooku nga war dem ak moom ci bépp côté mais jël ay sénégalais di leen ñeññ te yow ci sa dëkk boobu nga nekk wóor na la ni boo gëstoo di nga fa gis ay doomu réew mi ñu fi nekk ñoo xam ne ñu ngi def lu yées li nga lim. kooku nekk na kàddu yoo xam ne rafetlu wuñ ko waaye comme nag mbirum diplomatie dafa am mhm. te dëkk boo demit am na ñu fa teewal ndaw réew ñi mhm. sénégalais yi muy ambassadeurs yi mhm. may nuy waale ñun tamit suñu ambassadeur bi ñu fa amoon wax dëgg fa yàlla léegi naa sax nekkatu fa nit ku jàmbaare Massamba Sarr koo xam ne day taxawu sénégalais yi sur tous les plans donc pour revenir rek ci li nga doon laaj mooy que ni ambassadeur ba fa nekk autorité ya fa nekk dañ cee war a jug ci loolu parce que lépp luy tilimal doomu sénégalais deru sénégalais ñii war nañ koo xeex dëgg la ndax nag wax dëgg yàlla jëluñu pee waaye jëluñu ndaare ay jàmbaar lañ la <laughs> dëgg la lu ama am solo la te àdduna bi sax moo dépassé fu loo xamante ne dafa am ay nit à part ñi nekk fii ñi nekk fële le monde est devenu un village planétaire te mm-hmm. euh, citoyens yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk y a des citoyens yoo xam ne origine sénégalaise la ñu am c'est des français donc daal loolu bàyyi nañ ko ci loxo sénégalais yi ndax xam nañ ne ñu am fulla la mm-hmm. te ni nga ko waxee diplomatie mooy régler lépp waxuñu ko nag pour attiser waat ndax nettali xuloo xuloo la mais dañ koy dénoncer ñun itam ndax nag euh, sénégalais moom jàmbaar la ñu ko xamee mm-hmm. liggéey daan dooleem ñu respecté ñu fépp ci àdduna bi te yaakaar naa ne ni ñu gisee ambassadeur bi taxawee ko dinañ gën a restauré waat suñu diplomatie mm-hmm. ba ku jóg rek doo ñu doxat doxañ baaraam euh, di am loo xam ne danga koy teg suñu suñu ndodd mm-hmm. donc mu nekkoon rek benn parenthèse boo xam ne euh, dañu ko ubbi woon léegi nag ñu bëggoon a xam rek Ndeye Marie li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu Maroc booy def GP sa foofu la wala fii mooy sa base wala da ngay dem di ñëw wala naka la. en fait man euh, dama am foofu sama appartement. ok waaw boo xamante ne man ak sama frère. Eh, léegi Ndeye Marie neex na eh, bëgg a neex ah. <laughs> waaw man ak samay frère ñoo nekk ah, foofu que je fais salut de passage Khalifa mhm. ak euh, Ali. Mhm. waaw sonal naa leen torop. <laughs> ak euh, ka tamit ma am fi sama base sama mhm. kër fii nii. aussi France su ma fa demee aussi. sama sœur yaa ngi fa. Belgique aussi pareil. <laughs> <laughs> waaw mais daal base bi. Casa la ak dakaar dëgg la waaw lan nga xam ne bëgg nga mu amélioré ci li nga xam ne yéen a ngi koy liggéey. ah xanaa day euh, suñu bëggee lu amélioré wu. Mhm. te loolu bale passé xawoon naa si wax <laughs> nga ne ma déet mooy bu ñu ñëwee fii sonn nañ trop ak douanier yi. Mhm. Mhm. parce que da ngay ñëw indi say bagage léegi amatul sax vérifier da ngay ñëw rek ñu ne la. nombre de colis yi nga yor li ngay mm-hmm. joxe. Mm-hmm. metti na trop nous on est des jeunes. Mm-hmm. ñu nekk à l'étranger ñëw di liggéey. donc ñoom ñi fi nekk ñoom ñoo ñu war a jàppale. nga xamante ne bu ñu jàppalewul tey jii nii bu ñu ñëwee li am fii daal fii rek la am amul amul amul beneen dëkk. bu ñu demee Maroc. mettiwul bu ñu demee beneen dëkk mettiwul mais au niveau du Sénégal. metti na trop te loolu bëgg nañ ñu jàppale ni si parce que ñun ay jeune lañ dañuy liggéey di indi suñu dëkk mhm. ñu feneen lépp lu ñu am ñoo ngi koy indi suñu dëkk di ko bokk suñu waa dëkk mhm. mais ñëw di fay ay benn saak quinze mille benn saak vingt cinq mille ça dépend si li ngay kii parce que doo bëgg ñu jël say bagage di ko yóbbu dépôt bu ñu ko yóbboo ci es la le lendemain nga ñëwaat c'est tout un tralala mhm. donc pour éviter loolu ñoo ngi ñaan daal bu ngeen ñu mënee jàppale IGP yi si loolu ñu xool nan la ñuy def <laughs> dinañu gënal à part loolu na te waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat mhm. Air Sénégal na wax ak euh, GP yi mhm. wàññi leen billet yi nit yi mhm. parce que nombre de GP bi am au niveau du Sénégal di dem chaque jour donc Air Sénégal nañu nañu gestu xool GP yi parce que liñ fi dugal si xaalis kenn xamul nu mu mais à chaque fois mm. amuñu dara mm. loo xamante mën nañ si jàpp mm-hmm. alors que yeneen compagnie yi dañ fay doon góorgóorlu six heures wala doon ko dara am ay minutes ay troisième vingt-trois hmm. donc pourquoi pas ñoom ñu def ko parce que li ñuy jël di ko jox beneen doomu réew ñu jox ko suñu suñu waa réew wallaay gëm sa am na solo euh, li ñu cërale woon ci waxtu pratiquement na mhm. euh, donc dama lay bàyyi nga waxaale sa dernier mot Ndeye Marie boo xam ne nag bii sa ñëw la waaye du doon mujjantalu ñëw parce que yow moom suñu sœur nga suñu rakk nga xale bu baax nga xale bu am jom nga nangoo liggéey moo tax dañ ciy sawar te ñun dañu bëgg di promouvoir nee naa célébrons-nous bu ñuy dund nañuy célébrante di waxante yu baax boo gisee nit ku nekk ci yoon bu baax mhm. nga gën koo dooleel gën koo waxal yu baax ndax nag li mu am yëpp ci dëkkam la koy indi comme ni mu ko waxee mu nekk jàmbaar mhm. di dem ak di ñëw lépp lu mu am rek bokk koog njabootam yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay mhm. ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ci xam ne rek saa yoo soxlaa rek da ngay ñëwaat fii daal di toog ndax fii moom sa télé la ah, kontaanoon nañ en tout cas man personnellement ci ñëw bi nga xam ne ñëw nga fi pareillement fii la vraiment képp yow moom aw ma gis naa ne doon nga sër te xam naa yow xam nga man xam naa jàll sax wax si plateau dëgg la ah. waaye <laughs> léegi nag di nuyu ñëpp su ma mm-hmm. limee rek damay juum mm-hmm. nuyu ñëpp waa Maroc moom bàyyiwuma kenn sama client yi nga xamante ne depuis des années maa ngi nekk ak ñoom ñu mm-hmm. ñu bougé wuñu benn yoon. Mhm. di di ñaan nag mu bañ a doon suñu mujjantalu gisante fii si plateau bi. ñu di ko def ay at ci at. parce que mhm. mine de sa ça fait un an. un an waaw mars ah, daaw la woon ba mars ren. gis nga hasard amul <laughs> amul. donc di remercier ñëpp daal vraiment su ma limee rek damay juum. sama mhm. famille sama xarit yi. sama ñëpp daal ñëpp. mention spéciale ma waxaat ko a sama lakkal. madame Mena. dëgg la. <laughs> waaw kooku moom sonal naa ko torop. vraiment moom tamit euh, ma namm ko lool mu ngi ba France mhm. donc euh, di ko def un coucou mhm. avec son mari <laughs> waaw ndeysaan jërëjëf kontaan nañu en tout cas maam Diarra ñu bàyyi la nga tàggatoo yow itam waa mhm. Kebs kontaanoon nañ torop ci dalal la ndax yow itam jigéen nga nekk jàmbaar nekk koo xam ni uh, yaa ngi woon Maroc di liggéey liggéey bu am solo uh, fexe ba nekk jàmbaar jël sa entreprise samp ko uh, loolu yombul c'est pas donné à tout le monde ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay nga gën a nekk di taxawu ñi nga xam ne ñoom ñooy sa njaboot ndax nag jigéen ñi bu ñu demee tamit moo góor ñee yam lu ñu am rek dañ koo indiwaat fii ci seen réew mbaa ñu yónnee ko kon yàlla na seen jàmm yàgg ma bàyyi la nga tàggatoo <laughs> kontaanoon nañ ci dalal nekk télé bi tamit sa télé la. merci beaucoup yow moom da baax. dañ lay yàlla yokkute rek. Mhm. waaw yokkute ba faw ndax vraiment macha allah yow borom baax ga mhm. donc euh, Kebs di remercier ñëpp rek. Mhm. remercier bi da ci jiital ki nga xam ne vraiment mooy euh, sama borom kër. waaw di monsieur Nguer ndax lépp moom la. kooku ma ngi koy defal mention spéciale. dëgg la waaw di gërëm tamit sama yaay. di gërëm mm-hmm. sama njaboot samay doom. ah di gërëm sama goro yi ñëpp fàttewuma kenn ku lim juum mention spéciale nag sama rakk xol bi muy Ndeye Marie saw wala waaw vraiment macha allah sama rakk la sama xarit la. donc yow moom dama lay ñaanal rek ca kaw ca kanam ci lu baax incha allah nag juum waa Maroc moom seen kukku mu ngi nii jël leen. <laughs> dëgg la dëgg la merci beaucoup dëgg la ñiy seetaan bëri na ñëpp ngi wax un grand merci à toit Kebs c'est une opportunité pour nous euh, qui sommes à l'étranger de véhiculer les difficultés que nous vivons kooku nag mi ngi euh, Serigne Moustapha Mayka ak euh, nag Bintu Bintu moom nag nee na je m'appelle Bintu Bintu moom nag je suis ici en Guinée équatoriale on vous suit donc ngi lay nuyu bu baax euh, euh, Saliou Sow également mi ngi naan euh, macha allah Maria Chanel Diouf macha allah ziar nañ la soxna jaara magu jàmbur. ah kàddu yi rafet na <laughs> tu as parfaitement raison ma donc ñoom ñëpp mënuñu leen lim waaye ñi ngi kontaan ñoo nekkoon ci live bi nga xam ne moom moo nekk Facebook. Ah, donc amoon nañu mbégte lool ngir jàkkaarloog yéen ñi nga xam ne yéen a doon seetaan émission bi ah, di nuyu bu baax Pape Diakhaté sama tailleur bi waaye nag mm. ah, di commencé Euh, madame Wele borom Wele bijou ak accessoire nga xam ne moo ma jox yu baax yi euh, ku bëgg bijou yu rafet rek demal nga seetu ko daa poñi réew mi fi mu ne ci ay bijou waaw madame Wele borom Wele accessoire mm. euh, sama rakk jooju yàlla na jàmmam yàgg moom itam maa ngi koy jaajëfal bu baax di ñaan yàlla yàggal taxawaayam donc bu loolu pare GP yi waaw ndey mari nga ne gaawal rapidement heure bi jot na yaa ngi remercier di nuyu sama mbokk GP yëpp surtout ñak ñi nekk Maroc ñi nekk Sénégal mm-hmm. mënuma pare te duma leen nuyu ñooñu parce famille. dëgg la waaw benn famille lañ te vraiment ñoo ngi koy wane. dëgg la macha allah <laughs> dëgg la di nuyu nag waa benn coiffure ñoom noga yi ñoom ña fa nekk ñëpp ci salon ba ñoo ma defaral uh, sama bopp bi uh, donc uh, coiffel ma sama karaw nii ba mu normal yàlla na seen jàmm yàgg ñoom itam di nuyu waale tam ki nga xam ne moom moo di awa ndaw sama sista boobu la nga xam ne nee naa ko 30 ans de carrière zéro faute ak képp koo xam ne yaa ngi toogoon di seetaan pen depuis la France yaayu ngi lay nuyu Tra Africa borom Tra Africa marque boobu la ñu ngi koy nuyu ak koo xam ne rek yaa ngi doon seetaan waxtu wi euh, li nga xam ne moom moo di émission bi ak abi lii suñu rakk jooju samp ndëndëm foofu la nekk bëgg a nekk député euh, ci euh, Belgique ñu ngi koy jaajëfal bu baax di leen wax nag ne lii moo nekkoon émission diaspora bi nga xam ne nag moom la ñuy def avant ñoo tàmbali jëmmal jëm ci li nga xam ne moom moo di koor ñuy ñaan yàlla may ñu ñu fekkee ko te tal ko di ñaanal ñëpp jàmm di ziar ñëpp di wax ne nag ñu ngi leen di baalu àq leen di baal àq bu baax di wax yàlla nañu yàlla may weeru koor te yàlla nangul ñu suñu koor ñu dellu siwaat ak jàmm ngir di leen bégal ah, ñuy remercier toute l'équipe ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ah, Atia Sarr maa ngi lay nuyu bu baax sama ah, siste boobu nga xam ne mi ngi Thiès Ah, di jigéenu jàmbaar yow itam yàlla na sa jàmm yàgg ak Oumy Ndiaye depuis London di wax nag ni ah, ñi ngi remercier également ah, toute l'équipe bi nga xam ne gis nañu ni ñuy taxawoo pour que émission bi mën a yemb bokk na ci ki nga xam ne mooy borom diaspora moo di vieux Diouf rek vieux yàlla na sa jàmm yàgg maa lay jaajëfal bu baax di remercier Babacar Bey ak ki nga xam ne moom moo di am kenn du moom moom itam ci son bi ñi ngi remercier tamit Yacine yàlla na yàlla wéral loxo bi ci maquillage bi ak kanat yi ñëpp yaakaar naa ne képp koo xam ne rek jàppoon nga ci émission bi Pape Maguette ak ki nga xam ne mooy Bouba Samb ñi ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp di leen dig daje beneen yoon incha allah di remercier bu baax Koumba Touré Koumba borom une femme un toit yëkkati cuub bi ne muut bi jox ma ko Pape Diakhaté ñaw ko ñëpp a ciy wax fi mu nekk nii donc yàlla sa jàmm yàgg Koumba Touré moom rek madame Sène ñu leen di dig daje beneen yoon incha allah ci beneen numéro maam soxna loo sama waa ji maa ngi lay nuyu depuis Atlanta ba beneen yoon incha ci yeneen i eh, programme mu diaspora jërë ngeen